Pape Arona Sidibé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. Pape Arona Sidibé nga nekk président du COMES euh, collectif des médecins pharmaciens chirurgiens euh, dentistes en spécialisation du Sénégal déjà ngeen dugal benn préavis de grève est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun euh, ci yaatal lan moo waral préavis bi lan mooy jafe-jafe yi nga xam ni actuellement yéen a ngi koy jànkonteel. waaw jërëjëf euh, soxna si ñu ngi lay jaajëfal di présenté wu maa ngi tudd docteur Papa Arona Sidibé man maa jiite docteur yi nga xamante ne dañoo nekk di spécialisé wu ñoom ak pharmacien yi ak dentiste yi di wax ne dëgg dañoo dugal benn préavis de grève di si wax li nga xamante ne ni moom moo ñëw sonal moom moo bloqué vraiment nekkinu docteur en spécialisation yi bokk na ci point yi ñu mën a développer di bourse de spécialisation bi nga xamante ne ni moom la état de Sénégal du Sénégal jox ñu pour au moins mu nekk suñu source de revenu mais dañoo gis ne ay weer a ngi nii à chaque fois dafay tardé et que su tardé day indi jafe-jafe bu bëri ci docteur yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk di spécialisé wu parce que dañoo nekk ay pères de famille dañoo war a fay seeni lowaas dañoo war dundal seen njaboot dañoo war a faj seen i njaboot ñoom tamit ba tax na loolu su tardé dafay andi jafe-jafe di wax ni tamit que bourse boobu du ñëpp siy jot tamit et bëggoon nañu nguur gi ak ministre bi fi nekk ñu liggéey de telle sorte que bourse boobu képp kuy sénégalais bëgg jàng pour spécialiser wu pour servir sa réew nga mën cee am. comme sa nga mën a jàng spécialisé wu mën a jëriñ sa réew si wàllum faj bokk na ci yeneen jafe-jafe yi tamit docteur yooyu di nekk si hôpital yi di faj ñoom si boppam suñu feebaree dañuy am jafe-jafe pour faju mm-hmm. te si fàttaliku ministre bi fi nekkoon ay jamono di ministre Abdoulaye Diouf Sarr xaatimoon na benn kayit pour wax ni docteur yooyu noonu fu ñu feebaree ñoom ak seeni njaboot na ngeen jël en charge waaye dañoo gis ni am na yenn si si yoonu l'hôpital yi yoo xamante ne dañ naan la xamuñu kayit bi walla lii walla laa donc loolu dafay andi jafe-jafe ba tax na ñun dañuy yéeg a ko ci woote ministère pour ñu décanter situation bi te yaakaar naa ni loolu tey jii nii war na mën na dàkk comme que am na benn kayit bu ñu xaatimoon ba pare ñu bëggoon structure yi hôpital yi respecté kayit boobu noonu bokk na ci yeneen jafe-jafe tamit suñu jigéen yi suñu jëlee ëmb ba ci cappaandaw ga dañ leen di bañal lu ñuy wax congé de maternité te loolu daf leen di sonal mën na àndi ay complication si ñoom àndi ay njeexital tamit ci xale bi ba tax nañu ñu bëgg point point yooyu tamit ñu xool nuñ koy régler ak yeneen yi nga xamante tamit ay situation de garde yi nga def garde boo xamante ni nii benn fan lay durer ñu war la ci fay junneeg juróom-benn téeméer nga war ko bokk ak sa benn moroom wala sa ñaari moroom donc ñu xam ne loolu jafe-jafe la nga liggéey ba weer bi dee tamit hôpital bi du la jox benn motivation te yow da ngay consulter da ngay garde da ngay faj donc da nga nekk di participer activement si li nga xamante ne ni mooy revenu hôpital bi te en retour te retour yow amul dara luñ la si luñ la siy jox donc point yooyu bëri yooyu noonu moo taxoon ñu dugal suñu pré avis de grève pour mën a waxtaan ak autorité bi pour mën a saafara jàngoro yooyu yëpp pour que kat réewum Sénégal am système de santé bu résilient parce que ñun liñ bëgg mooy liggéey mooy faj waaw est-ce que euh, Pape Arona Sidibé euh, ministre de la santé de l'action sociale Ibrahima Sy nekk seen ministre de tutelle euh, yëg na euh, situation bi voilà. waaw bi li amee bind nañ kayit adressé ko ministre bi mooy préavis bi waxaale ko tamit ki nga xamante mooy DRHM bi yónnee ko ko donc du ñàkk ni jamono ji yëg na ko. walla si waxtu yi si kanam dina yëg bataaxal bi incha allah bi mais ñun lépp liñ bëgg tëjuñu buntu dañoo bëgg toog waxtaan mm-hmm. ñu trouver ay solution pour lépp mën a saafaru mm-hmm. ñu régler problème u bourse ñu muy retardé ñu arrêté ko yeneen point yi ñu waxtaan si trouver si ay solution ndax xam nañu waxtaan mooy li gën. bu fekkente ni état bi deful loolu comme ni nga ko waxee oote waxtaan ba ngeen trouver solution après préavis bi am ngeen beneen euh, plan d'action lu ngeen fas yéene def yëngu-yëngal. waaw dak xam nga bu fekkee ne état bi après fekk si wuñu si waxtaan bi bu boobaa tamit ñun dinañ concerté waat xool li ci gën si situation bi ñu wéyal loolu. incha allah rabi. Mhm. Euh, tey ji Ibrahima si en tant que euh, jeune parce que dañuy gis souvent euh, dañuy wax souvent plutôt euh, plateau médical bi fii dafa défectueux am nañ ay médecins yu xarañ formation bi baax na wante médecins yi bu ñu paree dem ci bërëbu fajukaay yi pour ñu def seen liggéey dafay nekk lu jafe parce que jumtukaay ya fa war am amu fa tey ji en tant que jeune nga nekk si métier bi lan ngay suggérer état bi si côté boobu naka la mën a euh, def euh, yan solution la mën a apporter pour relever le plateau médical. waaw loolu dëgg la parce que suñu réew mi am na ay professeur yu xarañ yu fi nekk yu nekk di tàggat docteurs yi pour ñoom tamit ñu nekk ay docteurs yu xarañ macha allah mais dañuy seetlu ni da ngay dem ci benn région doo fa fekk IRM wala scanner yi yi nekk ci benn benn zone. Mhm. du doy wala des fois yenn analyses du am ci yenn région yi donc loolu day nekk loo xamante ne ni day sooxe faju nit ki docteur bi diagnostic am day tardé te su diagnostic am tardé tamit patient bi tamit moom tamit day sonn donc pour pallier à tout cela. ñoom suñu mënoon gën a jàppale système sanitaire bi pour ñu gën a mën a ñoŋal faj bi ci Sénégal dina arrangé population bi mais tamit dina arranger tamit médecin bi nga xam ne moom mooy faj dina tax moo gën a nekk à l'aise si nga xamante moom lay liggéey. Hmm. mi ngi noonu kon Pape Arona Sidibé maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. ñu ngi lay remercier madame bu baax a baax di la jaajëfal voilà may fàttali ni Pape Arona Sidibé yow yaa jiite collectif des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation euh, du Sénégal ñu lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi merci beaucoup madame